bismillah fii niin ak daara yàllaaw safi baqa abin bi fiik yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li fiik yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان مرتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت لي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر رن منك يلا صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية أدام الله عزه والشعب المغربي ما أصابه جراء هذه الكارثة المفجعة وبهذا الخصوص بعث صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن الخليفة العام للطريقة المغربية برئاسة ابن عمه الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب مبكي ابن خادم رسول مؤسس الطريقة الهندية. بعث صاحب الفضيلة هذا الوفد لتقديم واجب العزاء والمواساة نحو أشقائنا نقول أشقائنا المتضررين في هذا الزلزال المدمر وأيضا تصميم مساهمة رمزية إلى سعادتكم باسم الطريق المنبه هذا هو سبب الزيارة ونختم هذا الخطاب بقراءة بيتين من قصائد الشيخ القديم مؤسس الطريقة المريدية واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا توافقهم بالكفر قلبي هكذا نرفع أيدي التضرع سائلين المولى عز وجل أن يرحم الموتى ويخفف العناء عن المتضررين وأن يحفظ المملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا وسائر بلاد المسلمين والسلام عليكم Rahim. Euh, Excellence, Monsieur la euh, je m'en vais tout d'abord vous présenter la délégation que l'honorable Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a voulu envoyer auprès de vous, de Sa Majesté euh, le roi Mohamed VI que vous représentez ici. Euh, il nous a demandé d'être conduit par son demi-frère ici présent, l'honorable Serigne Abdou Samad Mbacké Euh, fils de Serigne Chouaïbou, lui-même fils de Khadim Rassoul. Euh, il est accompagné par euh, Serigne Chouaïbou Mbacké, qui est le fils du khalife général de Mouride, Serigne Abdou Khadir Mbacké, votre vieille connaissance, qui joue les intermédiaires entre lui et le, le, le royaume chérifien. Et moi-même, Khadim Diop, euh, son secrétaire général. Donc le Khalife général des Mourides, Excellence, en composant cette délégation, a voulu en son nom propre et au nom de toute la communauté mouride et musulmane présenter à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Allah le protège, ainsi qu'au peuple frère marocain, ses sincères condoléances à la suite du terrible tremblement de terre survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre dans votre cher pays frère et ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. L'honorable Serigne Muntaka prie que accueille tous ceux qui ont perdu la vie en son paradis Firdaus. Et il prie également qu'il aide le peuple chérifien, nos frères en islam, à surmonter cette épreuve très dure qui appelle de tous les musulmans leur solidarité à l'endroit du peuple marocain. Pour marquer sa solidarité agissante et celle de toute la communauté, le Khalife envoie vers vous, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, cette forte délégation conduite, comme je viens de le dire, par son demi-frère ici présent, Serigne Abdoul Samad Mbacké, qui vient vous apporter réconfort moral, mais aussi un soutien symbolique d'un montant de 100 millions de francs CFA en guise d'assistance aux sinistrés qui sont nos frères en Allah. Il formule en même temps d'ardentes prières à l'endroit du peuple marocain afin qu'il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité sur le chemin tracé par les hommes de Dieu que nous avons en commun et grâce à qui nous sommes unis par la foi. Voilà les propos que le calife nous a, nous a chargé, à travers Seigne Abdul Samad Mbaké, ici présent, de transmettre à travers votre personne à Sa Majesté le roi Mohamed VI, en priant d'agréer nos salutations les plus respectueuses et les plus cordiales. Ah, euh, exprimer ma mmh. profonde gratitude pour ce geste euh, <coughs> euh, très symbolique. D'abord, euh, Euh, la venue de la délégation du, du, du, du, haut niveau, du très haut niveau, donc, euh, y compris donc, euh, les membres de la, de la famille du Cheikh Montara. Donc ça, ça dénote vraiment de, de l'intérêt que son éminence porte euh, au, au, royaume chérifien au, et puis au lien particulier qui le lie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, euh, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste. Euh, c'est encore euh, un symbole de cette relation toute particulière qui a toujours euh, lié euh, la ville sacrée de Touba au royaume chérifien. Et ça, enfin, dénote de cette solidarité qui a toujours euh, existé entre nous et qui est aussi un des, des piliers de l'islam. L'appartenance à l'islam, c'est aussi cette solidarité euh, permanente, euh, cette solidarité agissante entre musulmans là où ils sont. Donc je crois que cette, cette démarche est à saluer. est un salut bien qu'il soit tout à fait naturel dans nos relations quotidiennes. Mais cette euh, démarche donc est, est vraiment la bienvenue et elle est appréciée et nous sommes vraiment fiers de cette relation toute euh, humaine, euh, spirituelle, euh, mais aussi de ce soin particulier que chacun apporte à l'autre. Euh, donc vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas seul, que nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi dire que dès le début, son éminence euh, s'est adressée à Sa Majesté le Roi euh, Mohamed VI Amir al-Mouminin euh, en lui adressant, donc en lui envoyant une lettre de condoléance dès le début. Donc euh, Et je crois que la boucle est bouclée, comme on dit. Et euh, les faits sont là. Et nous vous disons toute notre reconnaissance euh, et toute notre euh, considération. Et je vous demanderai de transmettre euh, à son éminence euh, vraiment les remerciements les plus chaleureux de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin. et aussi lui transmettre euh, les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Euh, nous sommes, euh, nous, encore une fois, merci euh, pour cet euh, élan de solidarité euh, admirable. Et Inch'Allah, qu'Allah protège nos, nos, deux pays, le, le Sénégal et le Maroc, et qu'Allah protège euh, nos leaders, mhm. et qu'Allah euh, donc nous rassure dans nos pas, et euh, nous permette vraiment d'aller de l'avant euh, sur le plan de la, de, la, de la paix, de la sécurité, de, de, de la prospérité. Mhm. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina moolana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi dawi radwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yëpp noo ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëwoon fii ci ambassade Maroc ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi toogee jataayub seexul xadim fekk fi ambassadeur bi ak ñi mu àndal ci liggéey bi ngir yëkkati njaalum sëriñ bi teg ko ci loxoom ak ndimbalam loo xam ne lu tuur la ci limu yéene mu dem ci kilifa ak Maroc gépp ak njabootu Maroc gi nekk fii ci Sénégal ak ga nekk foofa njaal mu matale moo xam ne da koo jëmeli ci euh, réew moo xam ne ak senegal dañoo bokk di dëkkandoo di ay doomi ndey te yàgg lool te ànd bi rafet naka jekk mu waxoon ne nag nañ ñëw fekk ne jiite jiitaloon na ay leetar yooyu njaal ba mu egsi woon ci ñoom waaye mu yebaloon ma ne na ànd ak njaboot gii sëñ Chouaïb bu di doomam sëñ Abdul Xaadir sëñ Chouaïb bu Bass Anta Ñang ak sëñ Xaadim mii di jarbaatam tey secrétaire am ak mboolem délégation bi ñu ci ànd ngir ñu jëmmal ko fi ngir tiisu metti wi ak nattu bi nga xam ne ku ne xam ne ne eh, jullit nattu lay am waaye mbugal moom ci ñu gëmut yàlla la jëm kon nag li am nattu rek la mooy ñaan ak sun borom mu teggi nattu boobu te jàmmal leen te may leen tawféq ak mucc di jaare ñëpp di nuyu bu baax a baax ambassadeur bi di rafetlu taxawaayam ak taxawaayu kilifaam gi mu fi nekkal noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa wa barakaatu. basaka yaa baasitul amaala li biridan faskur mabasatati daarayni ya allah باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتات دارين يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخيرنا في بقف منك يا الله رضاك يا رافع الدار الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله